noo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziar di jiital ci nuyoo bi sëriñ Mountakha Mbacké xalifa général des mourides di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér bu ngeen gisee suñu jataay bii nag xam ne bés bu mag kuréel gu am maanaa gi di Touba ca kanam dëgmal nañ ko muy weeru sell wi di weeru yërmande di weeru dimbalante di weeru jàppalante ci njiital sëriñ Abibu Mbàkke moom sëriñ fallilu ak jëwriñam sëriñ Abdou moom sëriñ Abibu ci teewaayu sëriñ Cheikh Mbacke Omar ak sëriñ Fallou Bousso ci teewaayu président Abdoul Fattah Gueye président Touba ca kanam ak mboolem kilifay Touba ca kanam ak mboolem membre Touba ca kanam commission sociale bu tubaa ca kanam ci njiital Serigne Mourtala moom Serigne Abdoul Fattah ak jàmbaar yi nga xam ne ni ñoom lay àndal guddi ak bëccëg te foo leen seen ñuy dem jarul ngay laajte ci tey askan wi rek la ñu nekk. xam ngeen ne weer wu sell wi saa bu ñu ci egsee danañu jàpp bés boo xam ne nii dañu ko duppee social Ramadan muy bési solidarité ak partage bés boobu nag lañu ñu dëgmal. samedi fukki fan ak juróom-benn ci weeru avril ci kër Serigne Touba gi ci Daaru Marnaan di samedi bi njëkk ci weeru koor wi ba ca topp lay doon. di yëkkati ay kàddu di soññ rek ci bis boo xam ne baaxoos na koo def at mu ne waa Touba kanam di ko def ci di ko teg ci commission sociale bi nga xam ne commission bu am solo la ci Touba ci kanam di ko nekk ca bopp ba. di sëriñ Murtala moom sëriñ Abdul Fatah ñu tafal ca soxna bu Seen mu ànd ko soxna yi kon commission sociale boobu bis boobu ñu baaxoo def ci Ramadan bu ne ñu jàpp ko def ko moom lañuy ñuy waajal moom lañuy ñuy yëgle moom lañuy ñuy soññee kon sëriñ Habibu nee na mi ngi koy yëgal mbooleem kilifa yoon wi bàyyiwut kenn bàyyiwut ñenn bàyyiwut fenn nee na it ñu ngi koy yëgal mboolem seex yoon wi bàyyiwut ñenn bàyyiwut fenn ñu ngi koy yëgal it mboolem bokki bi yëpp ñu bàyyi ko xel ndax day mbir mu am solo ndax def sa alal ci yoonu yàlla dafa bokk ci ëpp njariñ fañ jëm bàmmeel nit ki bu fa duggee ba ba bis penc di taxaw ci jëfam lay dund jëf jooju nag ja ëpp solo mooy ji nga joxe te yàlla tax kon waa Touba ca kanam nin ko baaxoo defee def ko ci dëkku sëriñ Touba bii nga xam ne sëriñ bi dafa woote yaa la bari yaa ahla bari moo jooli bari bari saxaay moom desalut kenn kon fenn fu nekk mbooloo jógee fa ñëw dëkk si ci dëkk bi te moom waxoon ne mooy moom mooy bàyyi ñi nga xam ne dañoo néew doole waltu basir bi yàlla yataama dawaaman ansihim bii abaahum kulla ayni képp ko ab jirim nga amoo ko la taxaw sëñ Tuubaa nee na woon suñ doom na nga ko bégal ci man kon ñëpp gàddaay seen dëkki maam fekk si sëriñ bi te yàlla dogal ci ñoom liñ ko wolof di waxe seen loxo jotu seen ginnaaw ñooñu rek la tubaa ci kanam di jàppale ci bis bii muy woote sëriñ Habibu nee na mi ngi leen ci soññ te di leen ko fàttali bu baax a baax mboolem kuñ tudd ci sëriñ Habibu nee na jàppal na ci yow lañ tàmbalee kon bàyyiwut kenn ci yoon yi bàyyiwut fenn fu waaye di nekk te tey def katu lu baax. dañuy ñëw rek ci commerçant yi nga xamante ne bii nekk nañ ci Sénégal yëpp euh, rawatina waa ACIS yi ak euh, commerçant yi nga xamante ne bii nekk nañ Touba ci njiital euh, Baye mut Diop ak Serigne Kabou Fall ak mbooleem commerçant yi nga xamante ne bii ñu ngi seen ginnaaw. di ci woo tamit mbooleem commerçant yi nga xamante ne bii ñu ngi Dakar ak feneen fu mu mënti doon. di woo aussi ñi nga xamante ne bi mooy euh, jaaykatu gerte yi ak euh, jaaykatu diwlin yi ak euh, mboolem koo xamante ne bi yaa ngi ci biir dëkk bi di yëngatu ci wàllum liggéey boo xamante ne bi war nga mën a jàppale néew ju doole ji dañuy woo mbooleem ñi nga xamante ni mooy banque yi nga xamante ne bi yàgg nañoo ànd ak Touba Ca Kanam di liggéey ñu leen di woo ci bis boobu ñu jàpp ci ci seen kemtalaay kàttan bis bi nag niñ ko waxee Euh, Touba ci kanam fas na koo yéene def le 16 avril ci biir weeru koor gi. waaye ci turu soxna Rama Diouf mi nga xamante ni moo jiite diaspora bi ñu ngi woo mbooleem continent yi Amérique Afrique Asie ak Europe ñu ngi woo ñëpp ci taxawaay bi bis bi nga xam ne mooy le 16 euh, ñuy daje ngir euh, sàkku kenn ku ci nekk làmb ci sa am-am bi la yàlla defal. ca ñu dëkk ci dëkkub Seexuna Cheikh Ahmad Bamba bi nga xamante ni eh, lim ñu fi wooyee mooy ñu dimbalante bokk lépp bokk lépp nag mënul weesu kenn ku ci nekk di geesu ka nga tane ca la nga ko tane nga dimbali ko ci kon jàpp naa ne diaspora bi ñun li ñu bàyyi ci bitti bokk na ci xool social fenn fu nekk ñu ngi fay xool di ci jàpp kon bis bii day rawati ñu ciy woote ñëpp kenn ku ci nekk def ci loo man ak loo mënul ndax lu am solo la ndax euh, ñi fi nekk euh, am na ñu bari ñu ko soxla ñoo xamante ni euh, kenn ku ci nekk day laaj nga def ci loo man ak loo mënul. ñu di ci woo suñu mbokk soxna yi surtout suñu soxna yi Touba ci kanam ci njiital soxna Bintu Mbàkke di ci woo suñu mbokk soxna yi ñëpp ku ñëpp ku jiite mbootaay mbokk soxna yëpp commerçante yi ñëpp ñu ngi leen di woo ci bis bi ñu dugal ci seen doole. ndax bis la boo xamante ni boo am solo bis la boo xamante ni. opportunité la ci jullit chance la aussi ndax lépp loo ci def dalay leer ni nañ koy jox woon nañ ko te soxla nañ ko te it euh, ful suñu borom dina la ko fulal ba nga xamante ni doo réccu ci li ci fi nga ko def ñu ngi ci woo ñëpp waa diaspora bi soxnay diaspora bi ñëpp xam nañ ay jàmbaar lañu ci biir réew mi ak ci bitim réew bis la daal boo xamante ni am na solo am solo goo xamante ni ñàkk cee def sa alal wóorul képp koo xamante ni suñu borom xéewalal na la may na la wërsëg boo xamante ni mën nga dimbali néew ju doole ñu ngi la ci woo ci bis boobu. jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi ñu di ko woowee social loolu nag amut aw sas waaye lu waay man rek lay doon jamono ju nekk nag commission sociale Touba ci kanam mi ngi ci waar woowu. di leen taxaw ci wér-gu-yaram di leen taxaw ci wàllu dundin di leen taxaw itam ci wàllu dëkkuwaay te taxawaay yooyu yëpp ñu koy jiital ci barab yi jaamukaay yàlla yi nga xam ne nii ñoo nekk ci dëkk bi. ci biir at mi nag am ay bis yoo xam ne nii dañoo ràññeeku di bisi lislaam muy lu mel ne koor ñu baaxoo at mu jot bu ñëwee ñu gën a woote yaatal woote bi ngir xam nañ ne li nit ñi soxla woo day gën a yokk te am na ñoo xam ne suñu borom def nañu mën a gan waaye am na ñoo xam ne suñu borom def na alhamdulilahi rabbil alamin moo tax bu ñëwee rek dëkk bi dëkkub social la ku nekk xam na ne fu mu jaar ci dëkk bi rek ña ngay def lu mel nii waaye bu weeru koor jotee dañ koy gën a feddali e, daaw liñ jotoon a def tolloon na ci juróom-ñaar fukki million ci benn bis boobu nga xam ne moom la ñu woote woon ci ramadaan bi ren ji itam ñu ngi koy fas yéenee defaat di ci woo mboolem suñu bokki taalibe yëpp di ci jiital suñu kilifa yi ci kaw loolu ñu ngi sant bu baax Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne nii waxtu social wootee wala bala moo woote moo ciy jiitu ci seen di jiital seen jëwrin nag mu sëriñ Sidi Mbacke mu sëriñ Abdul Ahad di jaajëfal bu baax ak di sant sëriñ Abo Mbacke mu Cheikh Mamadou Fadal sëriñ sëriñ Abdul Fatah Mbacke mu Cheikh Mamadou Fadal ak sëriñ Mourtada mu Cheikh Mamadou ak euh, sëriñ Basiir mu sëriñ Abdul Xaadir soxna Bali sëriñ mu sëriñ Sonia bu ñu koy wax soxna Bali Muntaxa ak sëriñ Moustapha mu sëriñ Abdul Xaadir ak sëriñ Fadilu moom moom sëriñ moom sëriñ Abdul Xaadir di sant itam suñu bokk yi nga xam ne nii ba social tàmbalee ba léegi jamono ju nekk seen jëf ñoo ciy jiitu ñoo nag bu ñu tuddee Serigne Fallou Galas Mané Serigne Fallou Galas maane ak El Hadj Serigne Seck El Hadj ak El Hadj Dame ak El ma Madike Niang ak El Hadj saw sëriñ Serigne Cheikh Bara Gueye El Hadj Sini Seck ak doomam ju nuy wax El Hadj sekk ak El Hadj sëy Sey ak El Hadj Mafal Fall ak El Moustapha Seck point 1 ak sëñ Omar Bao alaaji Paate Jaxate alaaji Souley Diagne sëriñ Abdou Lahad Ka sëriñ sëriñ Thierno Lo ak sëriñ Basiiru Mbàkke Xaarim Awba ak sëriñ Maxtaar Mbàkke mu Cheikh Mamadou Moustapha Fadil ak sëriñ Abdoul Ahad Mbàkke mu sëriñ Abdoul Fata ak sëriñ Maxtaar Jenn ak le ministère sëriñ Abdoul Karim Fofana ak sëriñ Moustapha mu sëriñ Mamour mu sëriñ Fàllu ñi ñu tudd nag dafa doon ñun ñoo ñoo xam ne nii jamono ju nekk dañ ciy jàpp rawatina ci bis bii woote bi ak cant gi lépp nag ñu ngi koy tàmbalee ci ñi nga xam ne jàpp nañ ne ci aw waxin ñoom ñoo gën a néew doole ci foofu lañ tàmbalee ndax am na ñoo xam ne danañ bàyyi ko ci ca sancaan ya wala ñu bàyyi ko fa gën a sori ci biir dëkk bi indi seeni versement ci Touba Ca Kanam yor seenu ñaar fukk wala seen fukk ak juróom tàbbal ko ci social bi kon ñooñu itam ñu ngi leen di sant di leen ñaan suñu borom defal leen ay xéewal ba lii ñi nga xam ne mën nañ seen bopp man ñu man lu ko kawe woote bi itam ñu ngi ciy sant ak di ci fàttali njiitum réew mi ñu koy wax alaaji Macky Sall ndax daaw ba mu dékkee woote bi da cee jëf dañuy wax nag sëñ Abdoulaye daa waxoon ne du ma gërëm ku ma defalul dara waaye ku ñu defalul dara nag danañ ko sant kon ñu ngi koy sant bu baax a baax cant googu nag ñu ngi koy jaarale ci le ministère conseiller sëñ Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma moom mi nga xam ne ci moom la jaare ñu ngi koy yëgal te ko sant moom itam waaye di ko yëgal eh, tey sant le maire monsieur le maire sëñ Abdou Lahad Ka ak mboolem autorités yi nga xam ne ñoo nekk ci ci ci région bi yëpp ak yi nekk ci département bi yëpp ñu ngi leen ko yëgal. di sant tamit eh, sëriñ Abdoulahi Diom ñu koy wax Antoine Félix Diom weer wu nekk daanaka mu ngi jàpp ci social bi ak mboolem ñi mel na ñoom ñëpp ni ñu ko sante président itam noonu la ñuy sant ñi nga xam ne ñoo bokk ci li ñuy wax alxisbul muhaadara muhaarada muy ñi nga xam ne nii seen yéene. ak seen yitte yëpp xëy na ñoo ngay wut réew ma waaye seen yéene mooy defar lu defar réew mi ñoom it ñëpp itam bàyyiwuñu kenn lii daal la mbir moo xam ne la mbirum lislaam la mbirum yoonu morit la mbirum dimbali ñu aajowoo la bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñu ñenn bàyyiwuñu fenn ñu ngi woo ñëpp di ñaanal bu baax nag suñu jàmbaar yoo xam ne nii jamono jun mosaan a nekk ci waar wi ñu ak ñoom ñoo koy ànd mën nañ cee tudd sëriñ Modou Mamoun Gadiaga di ñaan sunu borom dolli ko yërmande ak xéewal ndax ku jàmbaare woon ci liggéey bi la waaye ak sëriñ Abdul Xadim Jaxate ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo jiitu woon ñëpp yàlla sunu boroom yokk seen i gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëriñ Abibu nag xam ngeen ne mooy woote waaye woote bi naka jekk moo cay jiitu daaw am na lim bu mu joxe woon ñu ngi may wax it ne delloowaat na buum ca boy boy ga bés a ngi noonu di bésu jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi. samedi fukki fan ak juróom-benn ci weeru avril ci kër sëriñ tubaa gi ci Daaru Marnaan mooy journée de lancement bi bu juróom-ñeenti waxtu jotee ci suba nag ci lañuy tàmbali programme bi waxtaan ci njàngalem sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul ñu ngi ci woo ñëpp nag Balla Mbodj nee na mu ngi ci woo mbooleem kuy yëngu ci wàllum njaayum oto ci dëkk bii di tubaa waaye képp koo xam ne yaa ngi ci dëkk bu sell bii di Touba ak ci loo mën di yëngu. social a ngi ci biir kon commission sociale mu ngi lay bàyyi xel bul xeeb bul yéem